yaa ko moom xam nga ni yaa ko moom waral sa woon. dum dum ti daa. Raison de Djourbel, département de Mbacké commune de Touba jaaxle jeex ak Touba Belel Quincaillerie Lepp lu ngeen soxla woon mu jëm ci walum matériel construction bâtiment lepp am na fa ci walum ciment fer ci ay qualité yu bax lool Waye lu jëm ci walum plombier sanitaire ñoma ci doy wo ak lu jëm ci installation salle de bain dañuy jaayit matériel électricité yow mi sa courant daan cher daw sil gaaw ñu jaay la ay matériel yu bax lool ta yaxanal sa poche lu jëm ci walum matériel pièces détachées lepp am na fa Auto, moto ba ci welo yow mi bëgg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 le ci Touba belal quincaillerie fi ngeen ko japp fofu la lu bax suufu len te ku liggey ñu jëppi la yes ka ñu ñëwoon na ndaw mbokk mi ndax nga yor yobante bu jëmba bu jige bitim rew te nga bëgg ko jaarale ci sécurité rapidité efficacité dawal léegi seeti seen cargo seen cargo dafa ñew rek jéxal njambatu mudu mudu yek fatu fatu yi ndax coono biñ dan dacc ci seen yobante loolu yi dañ na tay kon na kenn ku nekk jël yobantem jox ko seen cargo mo xam fu mën di jóge baa fu mën di jëm ci bitim réew gaawaay gi kaaraange gi foko tak rek weesu no ba tey mbokk yi seen cargo yëmul fofu dedet ngir gëna noppalé clientam ci noonu lay indilee service de transfert d'argent bu ànd ak sécurité rapidité ba tey naka noonu vente de billets d'avion kon mbokk yi toogaa jeex na daw leen léegi séti sen cargo ñoo ngi fii ci West Foire cité Mam Rawane su ngeen dikkee di ngeen fekk Jibril Bousso téléphone 77 908 86 15 ba tey mbokk yi mën gëna a jokkoo ak Mame Thierno seen cargo depuis Turquie Istanbul sur WhatsApp et autres téléphone plus 90 541 951 95 42 sen cargo votre bonheur fait notre prière mbokki Senegal ak lika wër denk leen ma seeni nopp ma xibaar leen cheikh abdul ahad kiman enil na leen produit yu bees produit efficace yi yokku awra produit bo xamne leppam dafa naturel sans cholestérol ñu defaree ko ak ay yo xamne ak gaaw si yokku awra góor wallaay ndeysaan wante cheikh abdul ahad kiman neena yemul fofu ndax dafa beral loxo jigen yi ma ko lan mu ni ma waaw indi naa produit bo xamne ne fay defar fess di defar ay ween ma ni ko ndeysaan ba nopi nak dila jox tay bu nice wante yow goor gi nga xamne da nga new katan cheikh abdul ahad kiman enil la poudre boo xam ne bis boo ko jëfandikoo da nga yëgaat sa bopp si naay wante yemuñu foofu dee ndax indil na leen yeneen produit yu bees muy adiwaas bu bees tàq ma ni ko wallaay daw leen ngeen seeti Cheikh Abdoul Ahad Kiimaan mi ngi Nord Foire Dakar li ko daree samedi ba mercredi 10 heures ba 19 heures dafay fonctionner Touba nag mi ngi fa nekk jeudi ba vendredi wante mbokk mi yow bu fekkee dangaa sori nga bëgg ku la seetal en distance woo ko si numéro téléphone am bii la ba nga dee 77 086 27 29 yaa ko moom xam nga ni yaa ko moom. waral sa woor. ananu gu ma way wi yaa ko. ren gi moom mosuma woor koor gu mel noonu. <laughs> la première fois non du métier bi sax quoi maanaam du coono koor gi mais bétis yi doon am ci kër gi. laa eh, mun di supporter. kër gi moom day neex. suu mais mais man maa doo ko woor lay mel nag. tonton ma fàttali la yaa ngi rappelé wu bétis bi mu fi defoon mooy bi mu fi ñëw doon gumba gumbalu <laughs> dégg naa ko. nettali naa la ko boobu man bi ma gisee tons dafa mel ni àdduna dafa tourné waat ci man. yooyu lay tëmbalti. mais maa ngi rappelé wu doon la fi def loon omelette. yaa ko laal moo ma fekk ca waañ ba di ma baab jox ma 2000 francs nee naa jënd yi nen. waaw yeneen 1000 ko jëndee dawlin ak soble. si defal ma omelette bu sama gan bu ñëwee na ko dama ko koy jox nangam nangam man amul problème. naa mm, mm, mm. def waaw tonton. Inès Gare ah tonton nga de. baax na jërëjëf. waaw Ablaye na. waaw wax dëgg dañ koo aaye ci réew mi wala. ça veut dire fekko mo won fe jamono bi ñi sentu wéré bi ramadan ji di ñew comme yow mom fitna fitna mag rek ngay gëss hmm. fekk ma fe ni ma wéri feñ na gis na ko ci météo gis na mais non la légui wéri bu feñé judd waaw buy laq do ko waxat wala yow fitna rek yow mom xifal mak wa do laaj mom ma expliquer lu démé man ma xol man am mom moy tay ji sax tay ji may wax yow ni actuellement man nga man nga xaar wala mu gis. weer wi gis. wala lu ci rek tey jii sax weer mën bi ma waxee weer say laa ci gëmul say wax moog prix mango yam day yéeg di wàcc mën ngaa dem garas dar mu jar fa juróom nga te boo léegee booy sañ seeti nga koy calcul mbaa ngay xool sa doomu nday seetu comme yaa ngi def erreur de marketing del bala ngay sañc del dox ci moddu waay del dox ci moddu bobbee jeex daa moo tax ancien nga maa ko moo tax baa ko euh, am na loo xam bëgg naa ñu waxtaane ko parce que maa ngi doon xalaat naan jour la wala wala ñu xol mais dafa ñew ah, il est temps ñu waxtan ko parce que jub na korité man à chaque fois sama côté da neex mais ren mom côté ren nga amu ci yakar deug la parce que daw ya nga gis ton def na ba xottil nañu yir yu rafet mais ren suñu eh, daaw eh ya nga juum daw sama yu baañ mo ñu xotil defaru ñu lepp ba mm. baax ni ma dal sama korité sama korité da neexoon man dal sama côté neexoon na daaw xaw ma ku dafa daaw moom moom wax dëgg yàlla moom mais ren suñu wa classe ñu organiser ben fête juste après. quoi engagé nga nag. ah mais man te tonse nee du ñu defal dara. engage nga de. mais fu ñu jëm. doon baax na. fu jëm laay laaj. man moom man. Hmm. personnellement hmm. dinaa gérer sama bopp. mais doo ma dimbali waaye nag t'inquiète dinaa dinaa gérer sa cas. waaw dinaa gérer sa ma sa biir rek. bu dee bu dee xiif dong lañ doon jooy moom. ah léegi mu tàggatoo fi de. nii kay mbégte dugg na moo tax tey nga def nii sa jas neer bu baax nii. Ah, waa li Ndiaye li nga sañse tey gis nga ko. gone yi xamul biib sañse ñun mag ñi dañuy sañse. Ndiaye tey neexoo dara itam Blaise Diagne ba 1902 booba sañse ah, yombul. kontaan naa ba boobu moom li nga def moom. kenn du man macha allah damaa bëgg xam nga sa nijaay daa ragal koor. Ah, waaw ni nga xam ne li lay daa mel ni de. Hmm, waaye nag jëppaa ndaw ga de. waaye nag war ngaa ñaan xéewal am. ah man kay nijaay moom laa ñaan ci laa bëgg na waxtaan ak yow sax. ah korite ñëw na ba pare. wallaay dëgg la. waajtaay dugg meeg affaire yooyu noonu xam nga. Hmm, moom kay yàlla yàlla def jàmm waaye ah lii di nuyoo di moom bu fekkente ni mooy ñëw ba fa ban fay ko yaakaar naa waxuma la waaye ren ñun ñëpp ay traitement la ñu ko defee ndax xéwal amagul yàlla bu yàlla tas suñu yaakaar xam nga lépp sotti. Hmm, na damaa dus ñu peut soo ay traitement mbaa ay corosé parce que poche bi diisut moom takk bi néew fii. yàlla baax na nijaay xanaa woo gaañu baax gi rek. waaw yàlla baax na yàlla mun naa def lépp sotti. waaw lu grand naar sàll moom danaa ko seeti naar sàll moom damay may xaalis. Ah. mu ko seetee woo. waaw yow am ngay nit ñu baax boo demee ci ñoom rek ngeen. ndax wax dëgg yàlla dëkkandoo ak say dëkkandoo ñëpp di ko rek di lakk dañuy. dund si ah nag wax dëgg yàlla dafa war a neex. ndax hmm? liñ daj liñ daj. kon dëgg wax dëgg yàlla. bu ma jógee nga xoolal ma sama asandaar moo woo sama nit ñu baax ku mel ne Naar Sall wala Fallou Lé borom arrondissement Ndam moom. Hmm. asalaamaaleykum. waaleykum salaam ah. sëñ Nogo. Ababacar Sadiq. ñu ngi lay siyaare. tey de sama xar kanam gi belli na moom. ah di belli na kay. <laughs> da nga ragal xiif. waaw ragal xiif de. anime fi rek ay namin yu naka yité gitu. naka yëngu yi tabarakallah ba am ngeen kan jam amen dañu yëgu ni jaay mbay tamit daan daan ah té mom tay neexu leen dara li ah dañu yag na sax tabarakallah mom am rek mbakal tak ko ba dama ne mbakal salah tay mom bobu ablay nar mi rewantal ci kër gi ci deul xamul dara xamul mbakal xamul dara bobu xam ndaysal pap buba job nak yalla ko yalla yere mo mënon mbakal pap buba job bu ma saana tak li marché bi jeexal ba mi discours hmm. la ilaha illallah eh? sa nebetu karawat arab ngay waxee itam laqal karawaatu la mënoon. ah karawaatu laqal mooy takk ba dënn bi fii. ah loolu arbitre yi ko daan def damaa jóg arbitre yi. yaa ngi ci jàmm <laughs> sant rek jàmm baax. tubaarikàlla loolay la. koor ci def taw féex de. jii nii mu def nii tawagut féexagut. fu mu ne nii daal tawut féexu. waaye tam sama poche dara newu ci waay. defal ndànk kee tam. bàyyi ceer seen kër goo. bàyyi ceer lu borom Istanbul. waaw. da koo jël. waaye li yor yónnee nañu xaalis pour ci koor ñu waajal ko loolu mënta na de. la illah bàyyi awa moom yëpp baax yooyu lay def da lay bett. waaw te moom day bàyyi ba maanaam falax falax ji. amatul ko jëm laa dëgg a mu yónnee. ah yónnee na de bàyyi Thierno. wallaahi ak nag. Hmm? Abdoulahad Gaye Abdoulahad Gaye. waram Touba Belal Kankaye. ah Abdoulahad Gaye bi ne fii côté Madiane Madiane. waaye wax nga dëgg moom moo jaay waa waa kii wii ma. waa bawal visionnage la waa waa bawal xaw ma tournage. waaw mooy ñiy tourné seen vidéo yi. moo leen jaay seen micro yeeg yooyu. waaw yooyu lay ma gën a neex moom. waaw matériel la mu am bu baax. waaw moom nag kenkaayri yi moom gars yi dañ tanaat sax dañ koy jaay ferraille yaa ngi ñaxtu. waaye waaye bàyyi Thierno it. seen cargo képp ko am yëbbante bu jógee Istanbul jëm si Dakar. moo ci sut. wala bu jógee Dakar jëm Istanbul. Sénégal rek socc sax doo ko indi socc ah day yóbbante ay soccu sax Baye Thierno. seen kër góor yóbbanteem du tàggu. waaw waaw Baye Thierno bu dee moom machine quelqu'un yi sax yi mu ciy indi daaw ba ren moom bu la joxee du yàqu. maa la wax ni waaye Abdoulaye Gaye mii mu tudd. Mhm. dëkk bii ñëpp kenn natt leen ko. wallaahi baa bawal visonnance la man damaa xam nga visum nasaraan mi xëruma mhm. ci. waaye micro yi mu leen jaay fi mu ne bu kon dajeel ci tànt bu ñu déggee seen micro nga dégg yow are xaar may ma jàng ngay toog da ngay xaar. non man kay xaalis moom ni mu ngi dégg. waaw léegi waaye fanweeri junni yi moom mi ngi dégg waxtaan yi moom mi ngi dégg waxtaan enveloppe ay sama nijaay. ay noqit. enveloppe bi yàlla da a ngi lan mil. Ah? juróom benn fukki junni. Ah. ak loolu lii. yaa moom fanweer. maa ko fanweer. danga rek. wax lii ay saafara tey de. maa la wax lii. daraas daraas jaa ngi door a commencé rek. falax falax na. waaw. ubbi na ak ak laay laay la ubbi. moo sël fi ne ma mos rek nag ragal nga koor de. ni nga amee activité nogum. Mhm. xam nga xiif. xam nga moo tax mbay. Hmm. booy takk jabar mhm. bul xoolub taar mhm. takkal ku mën a togg rek ndax ab taar day dem te du delsi te xiif nag moom day dem te bu demee maanaam ñaawaay kay am ngor moom ñaawaay waaw ñaaw moom da ngay màgg di gën a ñaaw wa ñaaw a gore waaye rafet moom loolu <laughs> takkal ku mën a togg rek ndax ñaawaay day dem te du moom saa bu demee delsi xiif saa bu demee delsi moo tax woor dama ko ragal la war a <laughs> léeg-léeg di ñoom ba ñaa ñaaw ma ne ko ak am ngor ñaaw ko day topp moom daa soo gërëm nag. waaye fanweeri junni bu ñu wéetee fii. waaw nga laqal rek sa wàll am na sa sago rek dafa def sa wàll. ay wuy ma. Mhm. léegi nag kër gi dafa jot ndagam koor gi gis nga. Ah. jàppal bàyyil coow guddi coow bëccëg. te weeru koor sax danoo war a juboo dëgg la lu jàmm ay ndagam weeru koor yàlla dogal na juboo amu ci. Hmm. te weer wi dana feeñ tey. rafet nga ci njort. ay dana feeñ. feeñee def bu dee feeñee def li gën lu mu gën a feeñ ma gën a sant yàlla de. weer de ragal nga waaye ba feeñut ba moytuwul. Eh, moom bu suba non non 28 na de waaw a léegi ma ma Màkka rek ma bëggoon woo gone yi ñu waxtaan. Mm-hmm. sa jarbaat. ndax say ja déglu say jarbaat la mm-hmm. te ginnaaw ay jàmm. Mm-hmm. te gore yi fi mu ne cooli cooli ku ci génnoon def la wóor. yow la ñuy wër duñ wër kenn duñ ma wër duñ wër seen i yow mi li ñuy wër yaay seen nijaay mm-hmm. woo leen waxtaan mënoo ko may waxe lan nugum yàlla sax dañ koy tooñ mu di ñuy jéggal mm-hmm. lan moo tax doomu aadama du jéggal danaa leen woo nag koor gi taxoon nga jàmm jeex na. Mhm. ñu dajalawaat famille bi rek. wallaahi nijaay mooy yoon. yow de loo ma ñaan ma may la ko. waaw wallaahi ndax danoo yàgg. man lu te man moom ñaare xaalis bu dee dégg waxtaan moom. Mhm. waxtaanoo lu mu ca def rek dama koy nangu. calculé ñoom Ablaye rek bu ñëw ñu waxtaan ba xam. Ablaye naa rek. danaa insisté rek insisté rek. te ñoom dara bëri ko wax dëgg yàlla war na noo am jàmm. dafa ragal koor faat neew na ko togal ci koor gi bam mu jeex ma Touba dafa tàng sansna climat bi maa nga mbuur ma faatu dafa waane bu fi fekkon fanweeri junni du duma ko jox ñaari junni bu suba mu jëndib sepp diw fi dang koy fii wa ah faat mën ta walam wàllam de toogu fi ba koor gi di jeex ne ko sans wàllam ma sha allah dina ma toppatoo may nak sama xol sepp na ci yow ndax wax dëgg yalla uh-huh. wax ca tel mu ga rafet mbay jigéen di wuma Mhm. mbay ànd jeyante tàggoo jiwante ànd bu yàq loolu ko yàq. dangeen a yàgg sax danoo yàgg mbay ba may mhm. jëli kii. Mhm. keroog ba ma la jox bay wu ñu loo. dinañ kee baax. nga sëg ko ci seretu laaj bi. mu lànk ba a dox ma yanoo ko. ndeysaan moo ko fàtte mukk nga yóbbu ko fa muy taw maa ngi koy fàttaliku mhm. nga yóbbu ko fa nu fees ko fees bu rafet mhm. mu sëy si may ànd ak moom di jugóoga daal mhm. fin na nar a dugg nga aayam a comme ginnaaw ay jàmm te loo ma ñaan ma may la ko nag ndax sama waay nga waaye di wax suñu diggante na ko gone yi romb naa leen fii ba nuyu la nuyu bu yam sax waaye comme ñaan nga ma ñu jiboo samay jarbaat lañ te bu naawee ma naaw bu ma naawee ñu naaw dina len wo ci ak ci ciranga waxtan ak mhm. mhm. ñu jéggal len ñu waj na koorub déwén ba heure yi am ci ramadan ji du am ci jot déwén sama jabar jinn nga ñaanal nit suñu borom defal ñu tawfiq tay nak nga sant Moustapha ja ndax japp na ci combat yu koku duma duma duma jox ci diko wax dëgg yalla waye nak mhm. ka ma xamal la aduna bi mom fi ne bo beugé dégg dëgg man mom fu may julli jee moy jumaa ju mag jee nga xamante fa la babakar joxuma di sap ndax mom xam nga sen sen bobu lolu raw ci julli gi nga ko fay mëna babakar joxum ba xam nga ah, seen xibaar kii loolu foofu loola raw dang koy mëna am bu ko defé di sétan julli yeeg tariixa yi len wax ak day tax nga mëna xam yu bëree bëri ci réew mi mhm. di siaré fallu li nak borom arrondissement Ndam day japp ci ko ñom ah, ah fallu li waaw fallu dañ japp grand nar sàll mhm. ñoom ñëpp dañ ci japp waye big na nak nak li dafa kawe xam nga buñ togué nga may yedd di dem ba bis bañ nit suba la ñuy war wala nga dem may yedd ma tek ba 300000 ñew mille mm-hmm. am ci kër gi man ta ma ngi sant sama yaay ju baax de sonu sonn moom it kenn eh! baalu sa bint aram joor Jangan la sant ak seen jiile ñaan kenn serigne touba ak samba ndu may nañ teunk ma ngi leen sant ñom ñep yalla nañ yalla bu ndek yalla nañ yalla dimbali rabb dina na rahmatan min allah ibadiya ridwan wa rahmatan min allah dal ci ma defal ne dama le ko ne bëgg na mu baal alayna bëggal taxal bëggal taxal sallallahu alayhi wa sallam ramadana ak nugum nugumi sahru ramadana ak sapar-sapar ramadan ramadan